bu taxaw di accuser ay homme ay ministre ak kii de corrupteur mm-hmm. Farba Ngom taxaw na wax ko mm-hmm. Mm-hmm. taxaw na accuser fi Thierno Alassane Sall ne ko ànd nañ fenn ñu jox la jox ma ah ah démb mi ngi wax osmaan songo ba muy jaay kër yi ci suuf maa nekkoon ci ginnaaw di jënd <laughs> xam nga ci n'importe quoi te ñëpp xam nañ ni bon Farba Ngom Euh, lu Macky Sall la wax te muy dëgg boo ko déggul ci làmmiñu Farba Ngom du dëgg. <laughs> dëgg la te moom il a hmm, dafa wane ni moom toutes les sales moo koy def ko hmm, di menacer ay ministre di mena di menacer di assumer ko mm-hmm. loolu c'est ci ayu Macky Sall bi li fi xew c'est extraordinaire quoi. moo yàgg am mais bii c'est à l'extrême. waaw bii c'est à l'extrême système bi moo egg ci plateforme bi quoi. mais nag ça tombe bien parce day yee sénégalais yi ci ñu xam fan la war a jëmale seen carte. ay ministre ñu lay ay nu mu tëddati Farba Ngom moom lan la sax ci état bi. ah. <laughs> dara ci lu rëy la ci biir. <laughs> comme li nga wax dafa garaaw quoi. ci fonction ci fonction du dara. mais ci biir waaw. am na fu ko Macky te kenn comme comprendre nga boo xamante ni dañuy dem di euh, nañ ma jéggal ci kàddu gi di défendre droit sàcc yi. ak caga ji mu ma jéggal ba pare ak ñoom seen droit moo tax ñuy tëj gor yi ba ci demee ne affaire Prodac bi affaire Prodac bi naka ngay mën a juger loo xamante ni lool tu leeraloo mbir mi di leeral wax ji. waaw. <laughs> Hmm? Hmm? waaw bu coow moom coow la lañ war a xool lan moo ko indi lan moo ko indi la nag rek lay waa yaa ma wax maa la wax waaw ay ñu gis fi ay démission dimanche <laughs> ah yaa ngi junj de. ah mais sunu si eh, eh, candidat Benno Bokk Yaakaar bi moom dañ ko waroon ñëw ne ko yow kaay yow yaa fi toog na eh, kii am na nu mu tëddati rapport am na waaye dañoo yaakaar ni man maa ko publier mais publier wu ma mais rapport am na. Mhm. ñun jax ñun du ñu ay tubaab du ñu ay ay pré rapport ak ay rapport final ak yooyu xamuñu ko rapport am na daal am na ko. Mhm. te yow yaa taxaw wax ko. yaa taxaw wax ko. ah <laughs> donc <laughs> yaa ngi dégg wax ji. Mhm. et puis comme niñ ko Sonko waxee Amadou Ba mënul nekk fonctionnaire nekk milliardaire quand mhm. moom ci wàllu boppam peut-être que Diomaye foofu la doon waxee nii candidat yëpp nañu def seen déclaration. de patrimoine. patrimoine. boo ci boolee Macky Sall miy def déclaration loolu moom mënul nekk parce que président bu ñuy jox douze milliards de budget par année fond lan politique. Mhm. loolu ci dëkk africain yi rek la ma tayir mhm. amul feneen ci àdduna. Mhm. Hmm? yow fi mu président noo koy contrôler danga xam salaire am. non salaire am kañ xam nga ko sax c'est justifié mais ah. disons que ñaata lay fayee ko président li muy am ci suuf quoi li muy am ci suuf kees gaag yooyu noonu man ñaata lay président Sénégal di fayee ko par mois est-ce que man xaw ma ko fii nii si am na am na am na benn baromètre bu ñu def quoi député ministre am na même après su nekk président ba su dee jox leen ma chiffre bi président mën na nekk non je sais su nekkul président je sais que c' est 7 millions su nekkee président je sais plus mais je sais que. c' est en dessous de ça. 7 millions waaw mais su ah non après sa vie de de non non bu nekkee en fonction. bu nekkee en fonction je sais que c' est de ça mais une fois que mu nekk euh, ancien il a un salaire de 7 millions. avec ancien président dégg naa ñu ne 9 millions lañ koy fay par par par par par. kii bon ah. xëy na dañ koy yokk quoi mais man seet laa jàpp. 9 millions plus. ancien président quoi. ngi laajte euh, <laughs> ah, non non non yooyu dañ ko war a lijjanti. set bi tey wax. tu vois set bi laa déggoon. mais mais Tahir yéen seen programme. <laughs> Mhm. caisse noire bi lu ngeen ci wax. caisse noire bi. Hmm. bon je je lire naa programme bi mais gisuma ci waxu caisse noire. mais lenn xam naa ko quoi mooy transparence moom mi ngi ci programme bi transparence mooy firndeel que ni lépp lu ñu war a mën a décider au nom du peuple askan bi da ci xam da ciy teg loxoom pour mu leer parce que soo xoolee fii muy Sénégal di Afrique problème de transparence kese la ñu am da ngay toog ñu naan la ay secret d'état ay secret défense loolu yëpp c'est des secrets dépense la secret dépense kese la maanaam mooy <laughs> liy jar cent franc ñun gëmloo na lii cent franc lay jar fekk sa këyit ya trois cent ba quatre cent lañ ko jël trois cent ba quatre cent yoo xam ne maanaam ñoom ñoo koy séddoo seen biir mhm. après ñoo tegal la ko looloo fi am mhm. te loolu mënul wéy da ngay xool ba ci auto fonctionnaire yi mhm. état dafa am nu mu majoré auto fonctionnaire auto fonctionnaire waru dépasser vingt cinq millions en tout cas du temps parti socialiste mais léegi da ngay xool benn ministre boo xam day dawal oto boo xam ne cent dix millions lay jar. cent vingt millions te du ci am benn mën na ci am quatre. sans compter oto yu ko war a escorter at yi war a jël garde mi et tout gis nit ministre simple boo xam day génn këram di doxanto presque un milliard en voiture. ñu mës naa dem dama la jox exemple daw mës naa dem. un milliard mës naa ah, mës naa dem VDN ba. mës naa waaw kay. dix bu nekk cinq millions rek gis nga ba ba ba ba la Fatick wala nekk ministre des sports nu mu tuddati. Euh, ba mhm. boobu dama jógee woon Paris ma dem fële VDN ba. boobu maa ngi doon waxtaan ak sam benn euh, waay yi jaay fo jaay oto foofu noonu. boo xam nga Matar Ba dafa am benn mosquée wetu këram quoi. Mhm. moom ba mu génnee ma gis cortège bi pour man levée du corps moo amoon. <laughs> le gars ma dit que non c'est le ministre Matar Ba qui sort. yaa ngi dégg c'est un ministre des sports ah. oui loolu am si dëkk bi te du moom kese ah. du moom kese matin bi soo demee Almadies ay huit heures du matin soo rombee yenn kër ministre yi da ngay xool gars yi nu ñuy taxawee. Mm-hmm. tu penses que dara moo fi xew fekk c'est juste et simplement un ministre qui doit aller à son bureau. ci ay oto yoo xam ne doo comprendre te jarul seen xaalis. parce que seen salaire mayu leen ko. amuñu benn business bu particulier bu leen ko may. lenn kese moo leen ko maanaam poste bi ñu nekk. di gérer kees boo xamante ne kenn surveille ko wala suñ ko surveille ñu def si lu neex président waxul ne enquête bi na na suivre son cours te du yoon budget bi mmh. donc voilà maintenant nag transparence mooy doxal dëkk <coughs> te transparence lu am solo la ci programme mu Bassirou Diomaye te lu ñu yitteel la loo xam maanaam mooy waral lépp wax ji mooy li am solo bam solo mooy sénégalais yi nañu bàyyi di faral diw bu ñu diw sàcc parce que sénégalais yi seen bopp parfois ñooy gën a xam ne kii alal bu mu yor liggéeyu ko mais ñoom ñooy génn sur un ton assez satanique di la défendre di la taalal ay pëna ay dañ koo jin fekk fii politiciens yi fi mës a jin sàcc yëpp ay sàcc lañ loolu lay wax ji te loolu mooy dëgg léegi nag na am ful xam ne li leen politicien bi di mënal ci xaru tabaski ci nagu tam xarit ci billet màkka ci leneen ak leneen loolu alalu sàcc la dëgg la man toog naa benn jour benn daam ñëw sama bureau association de femmes mi ne yéen moom da ngeen dem ba suñu doom yi sax mënul leen amal bourse ma ne ko maire bourse kenn du ko amee noonu ma ne ko politicien bu fi ñëw di war maye bourse jàppal ne lu mu sàcc la bourse du lu ñuy maye bourse maanaam concours la élèves yi gën a génn mucc ñu jox leen bourse bi ñu def leen bourse question de mérite la mais du question de jël maye te loolu mooy yoon te loolu il faut ñu jàngal ko sénégalais yi il faut ñu wax sénégalais lan mooy seen droit xam ne ministre bi directeur bi moom la war a ñoom la war a rendre compte mais fii da toog directeur sa koñ ministre sa koñ nga ubbi sa buntu defar benn puxus bu ndaw boo xam ne ñaanukaay yi fa lay ñëw mhm. maanaam lettre ordonnance fa lay ñëw mhm. lettre kii fa lay ñëw mais loolu du dëkk mhm. non du dëkk état duñ ko gérer ci informel état dañ koy gérer ci loo xam ne dafay formel day normal tant que état bi mi ngi investir day loo xam day concerner mbooloo bu bëri mais du investir loo xam day concerner benn nit wala benn koñ du noonu maintenant nag li war a dem ci benn mbooloo mooy dem ci benn poche après kooku day obligé de maanaam ci jënd ay nit di ci am ay nit te loolu du yoon Mm-hmm. donc voilà d'accord euh, mais kilifa affaire de caisse noire bi ñuy wax ni le temps ñu continuer ak Tahirou Sarr donc caisse noire fi mu toll nii est-ce que amatina lieu muy exister ci réew bu mel ni bu Sénégal ndaxte caisse noire ñu ju bëri dañu jàpp ne fonds politique la rek tout simplement. waaw bon xam nga dafa am euh, lu Tahirou wax léegi mooy ñun problème mu transparence la am. waaw ah, mooy suñu problème la. Mm-hmm. bu ñu demee ba. fi ñu toll fi information toll. Mhm. dans tous les pays du monde. Mhm. soo demee ne leen seen président ñaata lay am salaire ñooy la lii lañ ko fixé. Mhm. parce que un président de la république on dit que le salaire dafa nekk loo xamante ni kenn waru ko exposé mais un président de la république on doit exposé lépp li nga xamante ni euh, maanaam ci. Euh, ci ci ci ci ci ci ci yooyu du ko demee ni salaire. Mhm. maanaam transparence fal ko lu mu ñuy coûter. merci beaucoup fal ko lan la ñuy coûter. ces mhm. déplacements. Mhm. c'est-à-dire di ñu war a rendre compte. di ñu wax ni lii mooy dépense yi lii la ñu état di coûter déplacement au président lii la ñuy coûter. fii kenn mënu la wax salaire fixe d'un ministre. kenn mënu la ko wax. ak fi information toll. ci àdduna bi. un ministre. buñ xamee ni lii mooy salaire am. xam ni le budget dañ ko voté pour benn ministère mhm. mais donc comment le ministre nan lay def moom ba après wala au moment où muy nekk ci ministère bi il se permet di mën a maye ay dix millions ay quinze millions ngay dégg ay vingt millions ay cent millions yooyu ngay dégg ñuy maye fan la ñuy jëlee xaalis boobu mhm. c'est simple c'est le contribuable mhm. bi nga xamante ni amul du ma ne amul saytu parce que le sénégalais mu ngi contrôler bu baax alalam mais bu fekkente ni ki nga dénk sa alal moom il refuse de te donner des détails man kat dix mille francs yi nga ma dénk démb mille francs yi bi ma xëyee lii laa ci def cinq cent yi ma def ci lii lii ma def ci lii ma def ci lii cinq mille francs moo la fi dese cinq mille francs yi la ki dese nag dafa am ay priorité wa gis naa ni sa tànk bi yaa ngi koy sóox ah gis naa ni bëgg nga sol ay yére mais est-ce que faju faju ba pare nga ëppul njëriñ après nga soog a jënd yére cest dire dañu war a toll foofu ci réew ñu nawlonte mhm. parce que ñun ñoo nawloo ñi ñuy dénk mais ñi ñuy dénk au retour duñu nawloo et ça c'est très dangereux te loolu moo fi am mhm. beneen bi euh, je pense que Dieuwrine Ndiasse moo ko wax Dieuwrine mhm. Ndiasse wu Tayrou daal am na ku ko ci wax tout à l'heure échappé na ma affaire bu am importance la lu am am importance la bon mais de toute façon caisse noire même buy am nous exigeons la transparence nous exigeons des explications parce que ndenkaane ala kulli xaal Sénégal moom foog ñu dénk ko mais alalu Sénégal aussi ki ñu ko dénk moom moo koy saytu moom moo koy toppatoo déjà déjà le le nom rek. Ah, c'est-à-dire le nom mais le nom rek dafa doy waar caisse noire c'est quoi caisse noire. caisse noire mooy waxi lan quoi déjà. mais waaw caisse goo xamante ni kenn amul droit saytu ci. caisse goo xamante ni kañ ko dénk il ne il rend pas compte. il ne rend pas compte. mais c'est quoi ces histoires. il faut que ñu dépasser loolu. voilà ci ci ci déclara euh, déclaration de patrimoine. waaw déclaration de patrimoine de patrimoine. di ñëw ci kees. voilà ça c' est important. Ah. c' important mais tam li si njaase xaw ma imaam.